ah jaan jagi noon jaan efficace grand marab du peuple day day match bi bi muy commencé daal ma Cheikh Gueye bi ma ko xoolee Barça day gañ Real kon ñaata la code bi mi ngi nekkoon code code code cinq presque quatre virgule quatre vingt quinze daanaka code cinq la woon nga teg ñaata quatre mille waaw nga mu teg ci quatre mille francs waaw mu fay dix neuf mille huit cent waaw kon bàyyi nii li ma c'est que li yàlla may nit ku ko nangu da ngay sonn boo nangoo nit boo nangoo nit yàlla may na ko doo problème bi loolu kese kuy japp walum seet ku koy def ma ma ci senegal fi bal nga ma dak di nga wax lu ne mi ni code baangi ni xol len nga xol kañ la ko jouer heure beeg yépp ngi ci ah, donte nañ ñi may sono ci ay walum jox ma code man suyuluma kenn code mais dama bëgg xamne nit ñi sax jour may ne lima yor woon bi ñepp japp nañ royal day gañ be ko xolé fi la ko jouer fi ne la barça day gañ wa ci sama kanam ne ma fekk li police bëgg <laughs> ah, ma fekk li police bëgg <laughs> police bëgg la leen <laughs> police bëgg la def de mi non Sénégal lii la xam moom maanaam loo koy wax na leer lii kay maa ngi ci biir dëkk bi moom jàpp rek maanaam gis lu leer lu ñëwagut. macha allah.